man Sane Ndiaye laa tudd maa doon yaay xale bi. mooy sama taaw. sama borom kër génnee àdduna jooyu ma dara. mooy liggéey dikk di ma jox. kii ñu rey xamuñu fu mu féete woon xamuñu ko. dëgërul nga wax. moo yorul sama lépp. musta xam naroo. bu xaalis mu dikkee sama loxo la koy teg su ma ne ko loo bëgg bëgguma dara yaay jëlal lépp may ma mille francs pare na si ñu royal ma sama doom ji nii rek bu ko yàlla yóbbu woon du metti waaye jël bal tiire kii ñu ray xamuñu fu ma féete woon xamuñu ko ndax ba sama jëkkër génnee àdduna léegi mooy liggéey rek di ma jox moom mooy fayal luyaas limi muy ci lay fay courant ci lay dund joy ma dara te moy sama taw ay sante yalla bu wer lan ngay wax nguur gi si jëm ci jéye yi ak yi nga xam mo am ci xalé yi parce que du ben yoon ñu lay xalé ci balal yoy ta bi lan nga leen wax eta ñu dimbal doomu gendal jappale leen ndax naari ñi ngi leen di jeex ndax daru gën ta metti am sa benn doom bu góor yaakaar ko nu royal la ko nii rek bun paree paree si jàllaat si beneen xale état bi nañu jàppale te yàlla tax ndax ñun yaay yi sonn nañ sonn nañ fa sonn yam jàpp suñu doom yi di nii rek jël sa yaakaar àdduna yépp ñu rayal la ko nii naar yi rayal la ko nii rek bëgg laa toog di la xool nii métti na fu métti yam nañu état bi jàppale jàppale ñu ñun yaay yi sonn nañu ci ah xanaa comme li mu wax rek man maamam laa. laa yàlla yërëm. man Cheikh Ndiouk laa tudd. bu baax. sama sët la. ngi doon góorgóorlu di wax dëgg yàlla noonu xamul dara jàpp liggéey rek daan dooleem rek la xam jàppale yaayam yaayam moom rek la amoon. moo ko amee loon yëppam. waaw mm. xale bii ñu jam ak sama doom ñooy ànd man maa tudd Ayda Diagne ak sanc ba sama doom ak sa gaal ga sama. doom bàjjan maa ngi si gaal gi sama ñaar doom moo ci nekk faalu muy tam sama doom la ndax sama doom lay àndal ba nii nu demee nii nu jam ñoom ñett ñoo ànd ñoom ñetti xale yooyu ñooy ànd guddeeg bëccëg doo xam yére bii la kii moom wala yére bii la kii moom seen lépp benn la xëy na nag lii la yàlla dogal faalu moo doon lépp ndeyam mooy dimbali ndeyam seen papa génn àdduna mooy yaayam am ay njaboot gu sew gannaaw yàlla lu mu am yaayam a lekk tewul woon nag yaayam fi ko yaayam yemale woon la yem mën na toog nii du siggi xool la bu ñëwee sa néeg ba dafay sëgg def nii rek nuy ñaan yàlla nu nu dimbali yaayam ji nga sësul si kenn man sama doom ma nga sa Amet Diop sama papa papa Abou tam ma nga sa sama doom la ñoom ñaar ñëpp a nga sa ñu dimbal nag ña fa des ñu indi leen ñu xam si lu ñu ne ndax nga am sa doom boobu ba léegi gisuloo ko tëdduloo si lal ba nelaw ñetti guddi yëpp lekkuloo naanuloo nelawuloo foo toll sa xel nekk si sa doom gannaaw yàlla nag dogal na lii dañuy santaat yàlla bu baax waaye nu dimbali li lay war a suuri des ñu indi leen ndax ñun sonn nanu jaaxle nanu lekk nu naan nu nelawunu xamuñu bun dund la ñuy dund waaye lii dafa metti jàppal gaal nga teer jàppal mool nga teer waaye rey mu mujj yàlla sunu borom rek moo yeyoo rey waaye kenn warul rey naar du benn yoon du ñaari yoon bus bu ne nii nan nuy reyale Macky Sall li lay war a suuri ñun amewunu ay bàyyi ma ñun amul lu dul géej gi ay njaboot la lañu am te géej gi lañu yaakaar amul dara géej gi kese la lañu am nunu dimbali ngir yàlla rey bi moom moo mujj jàppal nga yebalal nu indi waaye bul nu reyal rey moo mujj yàlla rek mooy jegoo rey waaye minute bu ne boo jàppee gaal nga rey ko pour lan fu mu tegu dàq dangay dàq ni de si biir dëkkam nga rey ko di lay war a suur nag nañu dimbali kenn te yaayam a ngeen. lu métti la nag lu xool lu du xool bii bii nelawam ba léegi. parce que xale bi ndeysaan dafa soppalu woon xale bi dafa dégaloon yaayam doon dimbali yaayam doon yaakaar xam nga ñëpp ku nekk yàlla nga yaakaar yàlla nga yaakaar kenn yaakaarul ni waaye nag yàlla dana jël kenn jaarale ak si waaw am na fu mu féete woon ndeyam nga jël ko coppe dóor ko bal xam nga li gën métti mos oui ma dégg nga dégg nga bu feebaroon sax. ndax Fallou sama néeg la dëkk daa yàlla boole samay doom ak ak Fallou Fallou mu diggal ma loolu nekk sama néeg ma ne ko Fallou mu man ko sa yaay sa papa nekk fi te gannaaw yàlla sa yaay góor la jigéen la Fallou jàppale sa yaay te yàlla tax Fallou nekk xale bu neex diggal Fallou ànd ak sama waa kër yi lu ko samay waa kër wax mu dégg Fallou Fanjaay juru ko moom kase Fallou dafa mel man maak jur sama néeg la dëkk Fallou lu ma ko wax mu dékkal ma ba keroog ma ni Fallou mun naa ma sama waa kër yi si mbaal na mu nekk bu dee dugg si fere fere ni day kii mi mooy jeex waaye amin mii sama doomu càmmin na àndal moom mun ma aw ma baas man ka jël sama baasu waa kër yi ngi si tëmb nga dimbali sa yaay sa yaay xebal la dara. bu dee dërëm jox ak mun ma mun ma tànn ma ni baax mun man sama yaay rek am man aw ma sama yaay. ne kër lu ma la dolli jàpp jàpp naa la ndax Faye Ndiaye si kenn gannaaw yàlla yaay loxoom mu déggal ma it loolu ni ma man sama yaay bu dee dërëm sax moom laa koy jox. ba bi ma àndi sama waa kër Dakar yaayam nekk fa nekk Louga ma ne Fallou mun naa ma ne xaalis bi nga amee baa dencal nga ko sa yaay moom maa ngi suba damay dem Louga. man nga waa bu subaa boo xëyee nga dem lu mu dem lu tam fekk fa diggal mu torop dem fa ànd ak yaayam ñëw jox la moo jox yaayam delluwaat Dakar mu ma tan mu maa delluwaat Dakar ndax man bugguma sama yaay di tumuraanke ak samay rak man nga gurgul yàlla la yàlla jàppale waaye fànjaay mi ñàkkul falu ñun ñi ñoo ñàkk falu ndax xale bu dem di taari too dem ngir waajuram nga foog bumk ka. gopp na am. Nafisa am na problème dafa ay fajjay waay fajjay fajjay moo am na fi yow waay ay fajjay la fajjay bay bay ba bay ba bay ay fajjay waay